kenn waaye nit nitte li ñu bokk tax foog ñu nekk benn léppi ñëpp lu ney ku ney nga ca kon réew mi ci nga bokk te liñ mën a séddoo mooy Sénégal kon moo ñu def fii mbook rafetul tur fi sa malit mi naan ñu mbeddum buur ay e, rafetul sànni sa médi ci canal bi naan ñu mbeddum buur nawet bi ngi ñëw yàlla ndox mi wàcc te bañ a ànd ñuy sàmm yoonu ndox mi ku war na laa ñor maam yàlla may ñu ndox ba a walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd onance jóg na ca teel te giy pexe fegu jëm nawet jóg ngir salaat réseau bi ndax kaaraange gi nekk sa wet ñu ngi ci région yëpp di def opération pré-hivernage débouché canal yi ndax mën na mi ba ñu tee otage jàppal ma jàpp dafay war kenn ku nekk ci ñun ñu bañ ci sotti mbalit mbaa suuf te bu sakkee duñu ko muñ ñu dakkal branchement de yi loolu jaaduwul muy garage wala marché ñu bañ ci tabax ci kaw régal yi Kondiri ñun ñoo ko bokk e eh, nan ko sàmm waay na ku ne sax ci li ko war mooy jàmmi ñépp waay maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ngaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ci fegu jëm nawet yi salaat jàppal ma jàpp mën naa tax mu mucc ci mënd maam yàlla may ñu dox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax mu mucc ci mën na bu ñu jubee nawet li yëpp ci askan wi tiit onance a ngi def waree fam mais foog ñi nekk nit sekkar ñi kanaal yi defar ba mu baax ne ko ràpp tëj ki sàcc kubéer ki sotti ca balit mu indil ñu mënd lépp lëj kondiri buñ ko fàttee mu def bouchon ndox mi génn salté def tata suñu kër yi indil ñu problème mu ay na yoween jamono ngi dox ba nit ñi ëpp doole réseau bi mais ONAS am nay projet ngir yee salaat ñu méngoo maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan olance jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mën da maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ngaan mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan olance jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci jaax yow boo jë moom bu jaaxaanee yow moom bala muy yëg coono gi yaay njëkk yëg coono gi kon ñi leen di ñaanal bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla gën a guddal seen fan أنا سكون بعد 10 سكون تريتانو بأمنا كخامني فاتنا سخن نيريتانين دخل نياك جام كنن يال يال يال ماي جام دفع أم بير بو خير بو خامني خير موجن شير تا أمنا نيو خامني دون دون بدي تمس نيو جس خير بوم أمنا نيو خامني دون دون بني نكيم ماجت mos ñoo gis xeer boobu am na ñu xam ni ñu ngi dox ñu ngi wax te ku leen waxoon ni xeer boobu am na duñ ko mës a gëm ndax mosuñu cee teg bët ndax am na doomu aadama yi xam ni lu ñu gisul boo demee commissariat yi dafay fees del musuma gis bis boo xam ni police nga toog fa suba ba ngoon te gisoo fa ay nit di dugg di génn ndax lan am na ñoo xam ni ña nga fa ndax ñàkk jàmm boo demee tribunal da nga fay nekk suba ba ngoon nga gis procès sur procès ñuy wax ñii di daanu di ndax lan am na ñu xam ñi ci waaye am na ñu xam ne nekkuñ ci jàmm boo jógee foofu nga dem ci hôpitaux yi nga dugg saaloo saal fu ne nga dugg fa nga xuus ko nga gis ñiy tëdd ñi ñu wekk seen tànk ñi ñu wekk seen loxo ñi ñu ŋaaw leen ñii di soox ñu ci bari am na ñoo xam ne nekkuñ ci jàmm te ñenn ñi seen ñàkk jàmm kenn yóbbeewu leen ko leen kenn yóbbeewu leen ko lu dul seen moroomu doomu aadama ni ñoom moo leen teg seen ñàkk jàmm googu kon mbokk yi yal nañu yàlla may jàmm jàmm dafa riche jàmm dafa neex bala ngay xam ni valeur jàmm mooy nga ñàkk ko keroog ngay xam ni ndakate jàmm a neex waaye tànk yaa ngi am jàmm mën ngaa bañ a xam valeuru jàmm mais bis boo toogee bis ba nga nekk ci loxo nga ñàkk jàmm di nga xam ni jàmm neex na misaal bi soriwul kenn ku ci nekk ci ñun ñam nga jàmm kenn ku nekk ci ñun ñam nga bis bu xam ni bis boobu moo xam suba la moo xam ngoon la moo xam guddi la te yaa ngi dund loo xam ni ñàkk jàmm moo la xañ ñii dañoo am mettitu bëñ guddi gépp nelawuñ ndax lan douleur métit bi ñuy dund ba tax na amuñu jàmm ñii dañ koy yendoo ndax am na ku xam ni ku cher ci ñoom wala lu cher ci ñoom lu ñu ñàkk ba fitna guñ leen teg ba tax na amuñu jàmm ñi gontoo ko ba tax na li ma doon wax léegi yu bari doo ko tal ndax bala ngay reetaan walla bala ngay bégee dafay fekk nga am jàmm mais soo amul jàmm lépp lu xam ne ñu ngi la koy wax ba lépp lu xam ne ñu ngi la ci bëgg a boole te amoo jàmm mbokk yi loolu doo ci mës a dugg wala doo ko mës a def wala doo ci mës a dem ndax li tax mooy danga nga koo talul ndax amoo jàmm kon nag yàlla na yàlla defal jàmm réew mi ñu nekk nag muy Sénégal ci lay mën a wax di wax ak waa Sénégal ñi ci biir réew mi. di wax ak tamit ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew ndax nag c'est nous daa nous ndax tey réew mi mën nañoo xuloo waaye sañu ñoo xeex ndax fii koo fi gaañ boo demul seeti ko sa mbokk ni yow dina dem seeti ko koo fi jël bakkanam boo demul ca armée denc ko gunge ko dina am ñu bokk ci yow ñu xam ni dinañ dem ca rob gunge ko te li ko dal yow yaa ko teg te loolu dara jaru ko fii li fu waay di wut te utoo ko ci jàmm même bu nekkee ci sa loxo doo ko téye ci jàmm boo xoolee muus mi nga xam ni mu ngi ci biir kër gi su jëlee benn jën te kenn joxu ko ko dafay daw ndax lan ni mu ko amee moo tax mu daw waaye bu ñëwee ba sa wet nga dagg ndawal baa nga jël jën boobu nga jox ko di nga gis du buuse fi nga ko ko joxee foofu lay toog lekkee ko fa xam nga loolu mooy lan parce que da nga ko koo jox mu lew ko doomu moo tax du dem mais soo wutee nga wuutu mu jël ko dafay daw kon lépp loo xam li ma bëgg a wax mooy lépp lu xam ni yaa ngi koy wut ci fitna wala lépp loo xam ne yaa ngi koy wut ci ñàkk jàmm ba nga jot ci doo ko téye ci jàmm ndax ku mel ni man wala ñeneen nañ ñi comme nii la def ba am ko man ne dinaa def noonu ba jël ko ñu nekk ci loo xam ni mooy xiiroo ak ŋaayoo soo xoolee réew yi nga xam ni ñoo ñu wër nga xam ni yàlla dafa dogal wala seytaane dogal seytaane mën leen ba ñu xeex seen biir ba def fa coup néew na ku ci def cinq ci résime amul loolu gisaguma ko ci ku ci def ñaari at wala atagu topp nga gis ka ne ni yow ñëw coup d'état la mu nekk coup d'état sur coup d'état ndax kenn du la yéene nguur ga kenn du ko ne doo ko fi defee moom it kañ la ñëw doo ko fi defee su ko defee ñu nekk ci pëccëxoo ak réeroo lor seen bopp ba loraale ñeneen ñu xam ni seen yoon nekku ci muy tuut tànk yi ñi nga xam ni ay tuut tànk la ñeneen di bàyyi xel xale yi nga xam ni. seen yoon nekkul ci dara ak lu mën a doon moo xam xeex la moo xam politique la tout tànk yi seen yoon nekku ci te da ngay gis ay tout tànk yu xam ne ñu ngi ci loru te jar ko te mbokk yi fi li fu waay di wut bis dina ñëw mu mel ni mosoo koo yor ndax ñett fi am amoon naa ko mënoon naa ko ak yoroon naa ko waaye li nga amoon boo déggee amoon naa ko mooy amatoo boo déggee mënoon naa ko mooy mënatoo ko soo déggee yoroon naa ko mooy yoratoo ko te loolu dafa jar a bàyyi xel ndax mi ngi suñu kanam te dafay ñëw ndax ku ne xam na ni suñu diine moo ñu jàngal lëkkum diinikum waliya diin rafetoo dafa baax donte kenn ku ne di nga yem ci sa diine waaye du tee ñu rafetal te rafetoo googu yëpp mooy bu tabaski jotee wala korite ñu nag ñoom ñooy bokk feet yi waaye su pag jotee ñu nit ñu dem ànd ak ñoom ndax rafetal ndax ay dëkkandoo lañu ay dëkkaale lañu ñu def ko ci jàmm kon mbokk yi jàmm dafa neex jàmm dafa riche jàmm rek a neex ay bala nga xam ni jàmm neex nga ñàkk ko looy def te amoo jàmm di ko fa teg ba am jàmm nga soog ko def xool réew yi nga xam ni tey xeexa nga fa muy ay Irak am na xale yu xam yi yaakaar nañ ñoom buñ juddoo ba tey ay bomb rek lañ xam ñun nag Sénégal réew mi mel woon nii te léegi dafa mel ni Sénégal léegi dafa mel ni ñaari réew a am ci ñi ma ko sañ a wax ndax am na ñu xam ni mbir mu xam yi am na ñu xam dañ ciy dugg te bokkuñu ci woon ndax ñoo yàq yëf yi ndax bari na ko xam ni warta wax bari na ko xam ni warta def bari nañu xam ni waruñoo dem fenn ndax ñoom dañoo war a toog ndax lu dugg yàqu ndax tey Sénégal ngay gis kër yu xam ni tey jàmm amatu fa ndax lan politique dafa mel ni tey Sénégal ñaari jàmm ñaari Sénégal la fi am mooy Sénégal boo xam ni dañuy wax ni Sénégal bii Sénégal Ousmane Sonko la ak Sénégal bu président Macky Sall. ba tax na da ngay dugg ci biir kër yi léegi wala ci mbedd mi nga gis ay xarit yoo xam ne ñoo daan ànd ay xarit yoo xam ne dañ daan kaf di fo di ree waaye tey mënatuñ ko ndax fexe nañ tey ji ba yàq loolu te yow bari na ko xam ne yaa ngi xuloo ngir Ousmane Sonko te Ousmane Sonko xamu la ngir xuloo ngir président Macky Sall président Macky Sall xamu ndax ñu nous sommes 17 millions d' habitants te 17 millions d' habitants yooyu yëpp président Macky Sall xamu leen 17 millions d' habitants yëpp Ousmane Sonko xamu leen waaw noo mën a bokkee ak nit ndey baay wala kii di sa cousin wala kii di sa sœur wala kii di sa soxna wala kii di sa yaay wala kii di sa dëkkandoo ba sa dëkkaale amal la njariñ fopp boo xewlee ngénte moom mooy ñëw bu safaan amee moom ngay gis loo mën a xewle moom di nga ko gis te yow mi nga xam yaa ngi xuloo ngir président Macky Sall soo xewle woon fii ngénte boo doon ngénte téeméeri ngénte président Macky Sall du ñëw ndax xamu la yow mi nga xam yaa ngi xeex ngir Ousmane Sonko di saaga sa dëkkandoo wala sa frère wala sa sœur wala nga mere sa yaay ba sa papa ngir Ousmane Sonko boo doon takk jabar tey jii baa ngay ngénte ak loo mën def doo ci gis Ousmane Sonko ndax xamu la kon war nañu toogaat ñun ñëpp ñu xalaat suñu bopp. toog ci seetu xam ni lii nga xam ni mi ngi dugg ci réew mi léegi ah war nañ ko fee jële de te xam ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñu delloo mbat la ca ndaal nañu meloon démb ak bërki démb ñu dellu mel ko rakk jox mag cërëm mag yërëm rakkam waaye tey xulowuñu mukk ngir suñu diine déedéet xulowuñu mukk ngir kër gi ni ñu koy defaree déedéet xuloo wuñu mukk ngir société bi naka la ñuy def ba mu baax xuloo wuñu mukk ngir mbedd mii naka la def ba bale ko ba mu set ba nga xam dootu ñu ci gis këyit dootu ñu ci gis benn salte wala ndox mi ñu tuur déedéet xuloo wuñu loolu lan la ñuy xuloo te ñi ñuy xuloo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp kenn xamuñu ci ñi ñuy xuloo ñëpp ñëpp ñëpp kenn xuloo wu ndax ñun ngay xuloo ngir Ousmane Sonko ngay xuloo ngir Macky Sall wala ngay xuloo ngir beneen politicien ñoom ñaar laa mën a jël exemple ndax tey ji réew mi bari na lu yàqu ci réew mi bari na lu xam ni jàmm amu fi te ñaari camp yooyu ci ñoom la jóge mooy ñi faral président Macky Sall ak ñi faral Ousmane Sonko ku ci ànd la kii rek ñeneen ñi attaqué saaga la mel ni yow doo Sénégalais te ku ci ne am nga droit nag nii man maafe moom ma gën a ceeb waaye nag réew mi léegi dafa mel ni. kenn amatul droit ni man maafe moo ma gën a ceeb dañ ñaan la di nga lekk ceeb bi par force ndax ceeb bi lañ bëgg te yow ceeb bi am na ñu xam ni ceeb arrangé wu leen ndax ay diabétologue lañ am na ñu xam ni maafe arrangé wu leen ndax gerte gi am na nu mu leen di def kon nag nga la yow mii nanguloo kii ceebam te yow nga lekk sa maafe yow it nga nangul kii maafem bi te nga lekk sa ceeb li ma bëgg a wax daal mooy fexe ba ñu bëgg ñëpp ko kenn amu ko unanimité kenn am te kenn du ko mës a am rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp te amul unanimité am na ñu xam ni boo doon toog fii suba ba ngoon di wax sayyiduna muhammad doo dégg ñu wax sallallahu alayhi wa sallam ndax gëmuñu ko am na ñu xam ni yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo sàkk jaam ñi sax dañ lay wax ni la yàlla amul kon unanimité amul kon nit ñi mbokk yi ci ñi ma ko sañ a wax a ah, man day joxewuma conseil ndax li may wax nii sama bopp laa ci jiital yàlla dafa dogal rek ma bëgg jàmm fas yéene dox ci jàmm te su ma sañ ñëpp am jàmm ma bëggoon ñëpp ñu xalaat suñu bopp te xam ne ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax réew mii su yàqoo waa France du ñëw defaral ñu ko waa Japon du ñëw defaruñu ko waa Amérique du ñëw defaruñu ko ci ñun lay këpp wala fi ñenañu ku jaaxaan di saw sa bopp ngay tooyal kon lii nga xam ni dugg na ci réew mi fas yéene xaajaloo ñu lii nga xam ni dugg na ci réew mi fas yéene ni di ñu teqale mbokk yi nañeen xolaat suñu bopp ñu dox ci jàmm di wax ci jàmm te xam ni kër yi suñu kër lañu dañ fi nekk ak suñuy ndey nekk fi suñuy baay nekk fekk suñuy mag nekk fekk suñuy rakk nekk fekk suñuy jarbaat فتبارك الله كون كين كوتي نيك تي نيون ريك امغا ليغا خامني مو نيك تي سا خول امنا ньо خامني ييري توباب ريك لا ني مانا سول مو ньо سو ييري اولاف امنا ньо خامني ييري اولاف لا ني مانا سول مو ньо سو ييري توباب واي كي كيغا خامني نك دا دا فا تام سول ييري توباب بو مون سو ييري اولاف نانكو فاو نغا سيمي سا مبوب مي سول ييري اولاف بي تاك تا مونو كو سول يان كوي توي كون كين كوتي نيك نان نانغول مورومام تا ني توك واختان بوكو لي ديمبك بركي ديمبك président ab lay wàdd ak li nga xam ne mooy Léopold Sédar Senghor ak Abdou Diouf ñu naan Laay Njomboor kii naan ko ñamalaa loolu ñun ay tout tànk lañu mais dañ ko daan dégg te xeex boobu xeex amul xuloo amul tey war nañu mën a toog ñun ñëpp ñuy kaf di foodiree bari na koo gunge ci politique di ko xeexal di ko xulool ba mu xëy falu keroog nga koy gëj gis keroog nga koy gëj dégg ndax li tax yow yaa ko doon ñaanal yàlla pour mu nekk ca kanam te xam nga ni booy puus nit ba mu nekk ca kanam te yow demoo ca kanam yow moom bu la gersuwul xool la dootu la séen ndax yow yaa doon ñaan yàlla ni ko yàlla na nga doon ki nga naan yàlla na nga doon yàlla na nga doon te waxoo ko ni yàlla nañ doon danga ko doon wax ni ko yàlla na nga doon fàtte sa bopp ba mu xëy doon ko mbokk yi kooku bu gersuwul yow fàtte na la te li may wax ni misaal bi sorul boo nekkee quatre vingt dix di pousse nit ba mu nekk premier yow nga nekk ci quatre-vingt-dix-neuf ah xool ki ci topp xool ki ci toppaat xoolal ki ci toppaat bala muy agsi ci yow looloo waral toujours nit naan diw politicien bi daf maa trahir wala daf maa bàyyi ndax nag lu sotti am borom lu sotti am borom mën nga xool ci côté bu nekk ki ngay gunge bi mu amagul dara ki gunge bi mu mënagul dara ki ngay gunge bi mu tekkeekul dara yéen ñaar rek wala yéen ñett rek wala yéen juróom rek bu mu xëy doon dara am na ñu xam ni boobu la ñuy ñëw ndax boo weddee li may wax boo doon lekk tey màngo bëccëg weñ yëpp ay ñëw mais boo doon lekk màngo guddi doo gis benn weñ li mu bëgg a wax mooy booy booy gunge nit ba mu nekk ca kaw dina am ñeneen ñu ñëw ñu bokkut ak yow ñi naan sama doom bi ñi naan sama rakk la. ñi naan sama jarbaata ñi naan sama sëta ñu naan maag yaayam ñu naan maag papaam ñu naan maa ko yar ñu naan maa ngénte ñu naan kii ma ma maay maay maay maay maay yow nga ni teg kon kenn jaru ci xuloo kenn jaru cee xeex nañ xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay réew mii suñu réew la ñu joxante loxo ñu ñëpp te xam ni koo fi gaañ yaa koy faj koo fi rey yaa koy jaale ji te ñoom ñëpp kenn jëru cee xeex kenn jëru cee xuloo dëju politicien boo dem ba fekk leen fa ñu daje ñoom ñëpp soo amee xel boo fa jugee dootu xuloo ndax ñoom ndax boo leen fekkee ñoom ñëpp dañuy kaf di fo di ree boo ko xoolee ci làmb ji tamit mbër mu tax tey ji nga xeex ak keneen soo ko xoolee dem ba ci biir di nga rus ki dem moo njaay gis naa benn image bu rafet yaay Boy Niang ak papaam dañoo demoon màkk yal na seen aj nangu bi ñu jógee màkk ñu leen di nganalee ma gis Balla gay roi des arènes ñëw fa ndeysaan te ku ne xam na ni combat Balla gay bii passé ak Boy Niang Boy Niang la yàlla may ndam ci kaw Balla Gaye waaye xoolal grandeur bi nga xam ni moom la Balla gay am grandeur bi nga xam ni moom la Balla gay am li mu def cuune mënu ko li mu def kuré yi mënu ko borom jom la borom fit la te def na fi lu ne dégg na fi lu ne tàkkusaan bu ne am na ko fi xam na ni àdduna noonu lay demee tey yow la ëllëg sa morom ndax idéal amul mais xoolal ni mu wàccee boppam taal otoom sañse def solu ba rafet dem fa dem siyaare ji papaam siyaare ji yaayam xam ni yaayu booy ñaa ak baayam boobu juruñu Boy Niang rek juree Boy Niang lañ ko juree mu ñëw ziar leen ñëw dugg ca mboolam ñëw fa guddi de bëccëg ndar kàmb la fa ñëw mu nekk lu rafet waaye mbokk yi loolu rafet ko nga defe waa tey liñ fi def yëpp ci lu ñaaw xoolal yiñ fi toj ci réew mi xoolal liñ yàq ci réew mi kuñ ko yàqal amul lenn luñ yàqu loo xam ni président Macky Sall moo ko moom amul lenn luñ yàqu loo xam ni Ousmane Sonko ko moom ay bagage jàmm rek lañu yàq ñu xam ni kenn sant ci sàll kenn sant ci Sonko ñu xam ni ay sénégalais yoo xam ni dañoo ñafe reyante ñu lepp yi xaalis ci banque yi toog fii ci réew mi ubbi seeni yëf di daan seen doole nga gis ay xale wala nga gis ñu xam ni wax dëgg yàlla ay mécontent laa mu mun xuma nu ma ko mën a tuddee mer ak mer goo mën a mer ndax wax waxi politique ñëw taal oto jàmbur ñu ci masawu suñu xarit suñ soppe ba jaxate nga xam ni barki démb njaay lañ taal oto te ñi ko taal kenn gisu nañ am nandam ndam waaye amoo ndam ndax saa boo rombee koñ ba sa xol dina jeex te ba ngay nekk mag boo rombee place bi nga xam ne oto bi fii fi oto jàmbul te tooñ nga ko ak ku dul baa jaxate ñeneen nag ñeneen dee sénégal yu bari barki ko xam ni ay tata la yor ma dégg mu wax sama yaram dafa daw

ñu naan la repose ici diw prier pour Libye wala prier pour elle waaw ki taxoon nga def loolu anam ki taxoon ngay taal àllu jàmbur yi anam anuñ kon nit ñi xale yi seetaan leen li ngeen def ñi nga xam ni tamit ñooy xiirtal ci xale yi jël sa alal di leen jox naan la songal diw taalal diw ngir nguur waaw bu fekkee ni li yow nguur a tax nga di ko def bari na ko xam ni da ngay falu tey même pas semaine nga wuy ji suñu borom kon nguur jar ko ndax li ngay wut xamoo ndax boo ko amee dinga ko jariñoo yàlla rek a xam kon looy wut wut ko nànk ndax bis boo ko téye waaye looy bañit bañ ko nànk ndax fii bëgg ak bañ a fi ne waaye bari na koo bañ tey suba nga bëgg ko bari na koo bëgg tey bu subaa nga bañ ko kon boy bëgg bëggal nang, boy bañit bañal nang. ndax bari na tey ji ci politiciens yi nga taxaw di xas fi politiciens degni, diumi dégg ni diw mi mi ngi nyari diw nga yàq ko lu mel ni xeme weer ñaari weer wala at ñu gis la yàgg moom ngeen ànd ñu tegal la naan la diw amul nga waaw kon lu ko fi jar kon nañu xoolaat suñu bopp mbokk yi te xam ni réew mi suñu réew la dañu wax Sénégal suñu gaal nañ leen jow te mànkoo jàmm daal jar naa wuti booy julli looy wax asalaamu aleykum mooy yàlla na yàlla def jàmm ci yow ku dugg ci kër buy nuyoo lay wax asalaamu aleykum ndax lan bëgg jàmm chaque jour mënooy ñaan jàmm ba pare di def safaan may wax ni si booy werd yaa salaam un million de fois nga koy werd yaa salaam te doxoo jàmm waxoo jàmm defoo jàmm doo mës a am jàmm ndax jàmm dangay nekk ci yoon bi soo koo werd mu fekk si la mais bu fekkee da ngay werd jàmm te awoo ci yoonu jàmm doxoo jàmm waxoo jàmm defoo jàmm doo dégg jàmm te doo mës a am jàmm kon mbokk yi yal nañu yaa defal jàmm yal nañu yàlla musal ci jàmmarloo yal nañu yàlla may jàmmaa jàmm daal jar naa wuti foo ko mën a am boo gisee réew yi nga xam ne ñi ngi am xeex buñ leen wane ci télévision bi nga gis ñi kenn ku ci ne yaa ngi yenn sa ëmb foo jëm wuti jàmm kon jàmm jar naa dem uti fu ne loo fa amoon ci alal bàyyi ngoo ko fa waaye yaa ngi yor sa benn ëmb yenn ko téye sa benn doom ci loxo bi di dox ay kilomètres ngir lan uti jàmm kon yal yàlla may jàmm yal yàlla musul ci jàmmaar woow yàlla defal xéwal yal na yàlla defal naataange yal na yàlla jubóole yal yàlla tàppe xol yi kon ni ko maam Abdou Aziz daan waxee ba kenn ku ci ne boo xoolee sa moroom gis ci sa bopp yàlla defal ñu taw tawhiid defal ñu nawet bu barke tàppe suñu xol yi di ñaan émission bii képp ku ko seetaan baa xool ko loo jàppoon ci sa xol bii wala nga jàppaloon ko nit yal na ko yàlla seppi ni dëkk nga mën a jàkkaarloo ku mën a doon moo xam sa fereer la boo mere woon moo xam sa sœur boo mere woon moo xam sa dëkkandoo boo mere woon moo xam ku mën a doon ku xam ni da ko mere woon ngir moo xam politique la wala lu xam ni leneen la may ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yàlla na denc sal si sa xol bi même bu ñëwul ci yow malay ñaan yow dama fekk ko fa mu toog nga jox ko loxo ni ko nañ am jàmm baal ma àq même bu fekkee ni moom moo la tooñ yow ñëwal ni ko baal ma àq te yàlla rek tax man de baal naa la te yàlla tax ñu tàppe suñu xol yi te xam ne ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm président Ousmane Sonko ci loxo yi mu nekk nii yàlla na ko ci yàlla génn ci jàmm ndax jàmm rek lañ ko mën a yéene ndax réew mi bu ñu sañoon ñëppay am jàmm président Macky sàll yàlla na ko yàlla may jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm ci jàmm lay dox ci jàmm lay wax ci ci jàmm moom it nga xam ne moo jiite réew mi moo ñu boot ñun ñëpp yàlla na defal jàmm suñu xalif généraux yi yàlla na yàlla may leen jàmm suñu waajur yi yàlla na yàlla defal leen jàmm suñu doom yi na yàlla defal leen jàmm képp ku xam ne yaa ngi déglu émission bi ak ku amul yéen a déglu ko yal na yàlla defal la jàmm mbokk yi maa ngi wàcce sama kàddu foofu dina xamal ni seen xarit seen soppe Souleymane Baye sopp Seydina Mouhamad moo doon jàkkaarloo waat ak yéen fii ci fi nga xam ni mooy baatu dëgg nga xam ni lépp lu ñu wax ñaan nañ yàlla mu nekk dëgg te ñaan yàlla am baat ci réew mi ndax réew boo ci nekkee war ngaa ñaan yàlla bokk ci ñi nga xam ne ay porteur de voix lañ bokk ci ñi nga xam ne am nañ fi baat waaye bu la yàlla maye baat it ba nga yëkkat sa baat li nga yëkkat yëpp yàlla nekk dëgg yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy wax dëgg ndax dëgg rek mooy mujj ndax dañu kulal xaq wala kaan moran donte dañ lay rey waxal dëgg asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Sewdish DJ yàllaa ñu sàkk jaxale maam ga fi kenn gënu kenn waaye nit nitte li ñu bokk tax foog ñu nekk benn lépp yi ñëpp lu nekk ku ne nga ca réew mi ci nga bokk te liñ mënta séddoo mooy senegal kon moo ñu def fii mbook rafetul tur fi sa mbalit mi naan ñu mbeddum buur ay eh, rafetul sànni sa médi ci canal bi naan ñu mbeddum buur nawet ba ngi ñëw yàlla ndox mi wàcc te bañ a ànd ak lor ñuy sàmm yoonu ndox mi ku ne war na laa ñor yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu ci mën la onon sug ni ca teel te giy pexe fegu jëm na wet jongir yee salaat réseau bi ndax kaaraanga gi nekk sa wet ñu ci région yëpp di def opération pré-hivernage débouché canal yi ndax mën mi ba ñu tee otage jàppal ma jàpp dafay war kenn ku nekk ci ñun ñu bañ ci sotti mbalit mbaa suuf te bu sakkee duñu ko muñ ñu dakkal branchement clandestin yi loolu jaaduwul muy garage wala marché ñu bañ ci tabax ci kaw régal yi kon ndiri ñun ñoo ko bokk e nan ko sàmm waay na ku ne sax ci li ko mooy jàmmi ñépp waay maam yàlla may ñun ndox ba muy wala ngaan ndox mi war ci fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onos mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam may ñun ndox mi wala ngaan ndox mi wàcc fépp naato ànd a jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mën na bu ñu jubee nawet li yëpp ci askan wi tiit onance a ngi def waree fam mais foog ñenn ñi nekk nit sekkar ñi kanaal yi defar ba mu baax ne ko ràpp tëj ki sàcc kubér ki sotti ca balit mu indil ñu mënd lépp lëj kondiri buñ ko fàttee mu def bouchon ndox mi génn salte def tata suñu kër yi indil ñu problème mu ay na yowén jamono ngi dox ba nit ñi ëpp doole réseau bi mais ONAS am nay projet ngir yee salaat ñu méngoo maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ngaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan Orange mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ngaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak la ñuy ñaan Orange mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mënd